artiste buubu ampaya ñoom ñaar hay laa ilaha illallah daan nañu lo se bodo bi 5 daan ñolo Maguette génn na loxo mi teg ko si bopp bi aropaas bi aropaas jàppandale ah aropaas daan na Black Maguette eh Rastaman gi bopp aropaas daan na Black Maguette Rastaman gi bopp <laughs> lan la ref di wax lan la bulu di jàkkaarloo kii nga xam ne mooy abiyon ñu koy lewaatoo Macky Sall roof na kii nga xam ne mooy abiyon diggante Bally Sall abiyon abiyon ak Macky Sall dugal na galgal kii ah Macky Sall daan na abiyon ware bi gaaw na diggante Macky Sall ak abiyon kii nga xam ne mooy Macky Sall daan na abiyon jël la ko set wecc sant sant yàlla def balatonik bi jamono yi kii nga xam ne mooy santana mu ngi doon jat kii nga xam ne mooy sant tamit jat na moom it yi ñoom ñaar a ngi sëgga ñu ngi laalante seen bopp ñu ngi lewaatoo diggante santana ak sant yàlla ku ne di tiba suuf santana jël na loxo mi teg ko loxo sant yàlla bi sant yàlla jàpp na tànki santana bi jàpp na tànki sant naa bi yëkkati na ko ba ca kaw ne ko ral si suuf sant yàlla nga na sant naa diggante ki nga Walda ak ki nga xam ne kii mooy Samsun da def lu rëy si làmb ñaari xale da def lu jaar champion lañ ndax kenn ku sa ndax kenn ku sa morom kenn ku nek bare nga lu beugal amateur yi ndeysaan mo do nang ndam li ki koy joxe muy borom bi digante ki nga xam moy Walda Walda Walda Walda Samson Walda war na ko ndombo Walda wal na ndombo Samson mbala la du Walda ak Samson ah Samson gennan na si muy combat bo xam ne ni métti na yàgg na combat bu neex la way dama ragal na nak li tax combat bi yagne mayna Samson moo ëpp doole ki nga xam na kii mooy Waldo tuuti parce que walda ni nga xam ne nii moom la dox Samsung léegi xalaat naa ne suñu amoon kattan konoon Waldo mun naa wax ne am na lu ko yàlla jox muy ndam li arbitre bi taxawal na li nga xam na ni waaw avertissement ki nga xam na kii mooy Waldo lan moo xaw arbitre bi subla waan na ñam ñaar euh, sëñ waaw muy lamb boo xam ne bii métti na. dëgg la muy lamb boo xam ne bii dëgg-dëgg. ñaari xale yi bëre nañ. waaw muy lamb boo xam ne bii ay champion génn nañ. ndax bu fekkoon ne compil lañ. mën nañoo wax ne ñii ñoo jël ndamba wan tey. dëgg jërëjëf alaaji ni nga ko waxee noonu la waaye alaaji gis nga ñaari xale yiy daje xale yi dañ xam doole te xale yi lañ ñoo xam na ni fonk nañ li ñoo def ndax Waldo def na lu rey waaye gis nga Samson Samson def na sa yaay Samson jël na Waldo Samsul Jalna Wando léegi si combat bi nga xam ne moo dox diggante kee xam ke mooy Youssou ak Bolong Bolong nak daan na am si ga dex dan na am si biir géej ndeysaan kee xam ke mooy Bolong mu ngay dàq kee xam ke mooy Youssou Ndour am na ngemb si benn loxam Bolong amon na ngemb si benn loxam Bolong léegi mu ngi ko sol solop ko takk na kee xam ne ke mooy jox gannaaw balam teel ki nga kam ne kii mooy Youssou Ndour ndeysaan bii nag bokk na Youssou Ndour musique seen bare Youssou la Gambia muy bare ak ka nga xam ki kii mooy Bolong mo am ak ngemb lu am lu green li wala lu bulo li dox ñu ganna jamana buñ toll ni Youssou Ndour jàkkaarloo ñun muy combat bo xamne bi nga xam ne kii mooy na jël am na ngemb bolong mu nga jël ñaar loxam téye ko ci loxol Youssou sunduri arbit bi taxawal na combat bi manduwaar sisin baangi ni di ñew tëj ci te yow sisin bi dang ci si ba ñëpp ràññee la si kenn du ko laam-laamee jamono yi nag comme ni ki tey sisin bi dina tëj yow lan moy sa préparé bu sisin bi ibé ko promoter ci ak fan ci lo leen di wax ah, ma ngay sante yalla di julli ci yonent bi sante sama ñaari wajjo dina sante yow parce que ku baax nga di sant suma manager Alaaji Mbay di gërëm ñëpp di sant yaa awa ah, li ma am pour wax mooy liggéey rek man moom dama gëm ne dama war a nekk soo saison bi bu tëjee ak saison bi bu tëjee yow man dama am pour dem liggéey man damay liggéey bu saison bi tëjee dama bëgg a samp fii si Gambia dama fi bugg a mel ni Yékini mel Sénégal nekk roi bañ daanu. mbaa doo fàtte gaay Leewtoo yi boo sampee ba nekk roi bi nga yow. yéen moom su ma leen fàttee dama ñàkk ngor parce que maag yéen la woon démb ba dara du dara maag yéen la woon kon bu dara doone dara ma fàtte leen kon du ma gor. booy Joola jox ñu gannaaw France jox kanam booy Joola ak France booy Joola daaneel na ki nga France. saabu yi combat bi rëy na métti na Ahmed ak Caakiri Caakiri daana na Ahmed ak Mixa booy Misra jox ñu kanam léegi Saalum Saalum am na ngem booy Mixa waaye ñu ngi ko jàppee ndeysaan dafa mel ni bi atte na fu mu njaat atte nu mu ko jàppee baaxul Saalum Saalum Boy Mixer Boy Mixer Saalum Saalum Boy nag moo ëpp Saalum waaw Saalum Saalum moom ndeysaan ndaw na waaye nag melentaan tuuti na waaye saf na saf na sap ndeysaan lamba ngi noonu ndeysaan cosaan a ngi noonu loolu mooy aada mooy cosaan desaan di gërëm amateur yi nga xam ne waxtu wi ne nii ñu ngi seetaan bëre bi bàyyi seen soxla di seetaan làmb ri lii mi laaj bennoo nekk benn diggante Saalum Saalum ak Boy Misira Saalum Saalum def ngeen balu weeli Boy Misira def ngeen balu pingli te leen dee takasee ngeen bali ba mu dëgër mbor noonu lay nuru jamono yi nag ki nga xam ne mooy Saalum Saalum jàppale ngeen ba ki nga xam ne mooy euh, kii yi dafa mel ni diggante xarañ loo jox ñu kanaaw ak fifty jox ñu kanam xarañ loo ndeysaan dafa mel ni moo gite ki nga xam ne mooy fifty fifty nag gàtt saf la ndaama gu saf la mooy nuróot am na lu muy wax am na lu muy wax xaw ma dafa loo xarañ ndax nu muy deme waaye am na lu muy wax Kareñ am na ngemb Fifty am na ngemb léegi tey combat bi jeex ndeysaan Kareñ loo mbër la Kareñ loo mbër la loo daana na ki nga xam